ginnaaw Infinix également partenaire beneen bu ñu gunge ci xalaas mooy Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom waa Optique Vision Plus Sénégal nekk fépp ci réew mi nag ngir di dab seen bànneex ci ay produits lunettes yu baax te garantie moderne teg ci accessible ci ay njëkk yu yomb boutique Optique Vision Plus Sénégal bu ngeen dem muy showroom bi nekk fii ci Dakar di boutique bi ñu ubbi Kër Mbay Fall boutique Optique Vision Plus Sénégal bi nekk Mbour bi nekk Touba Saint-Louis Louga yu baax lunettes yu ngeen bëgg am ay jim ci wàllu net ñi ngi leen fay xaar numéro téléphone yi ngeen leen mën a jotee moo di 33 821 54 57 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère borom gam bu baax bii ñu naan vite fait gam la bu complète gam buy dooleel seen bien-être gam la boo xam ne lépp lu euh, nit ki di soxla ngir dundam neex mën a noppale mi ngi ci gàmmu vite fait bi ñu nekk ci jamonoy nawet yooyu di sonal nit ñi bu ngeen ci bëggee mucc da ngeen wut gàmmu vite fait ñi nga xam ne ay mbóot ak weñ dañ leen sonal wut leen gaamu vite fait bi am nañu pâte dentifrice bu efficace am saabu bu baax boo xam ne am na savon vite fait mais beneen savon bu ñu naan savon king anti acné wala aloe vera li ci Limaamu vite fait buñ koy lim mm, bu ngeen dem boutique bu ngeen dem fu ngeen dem ci réew mi mën ngeen a am gàmmu vite fait bi ñu établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère Andil numéro téléphone bi di 77 555 11 11 77 555 11 11 wala 77 806 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ci gàmm bu mucc ay bi nga xam ne moom la ñu andil waa réew mi fu ñuy tàmbalee paase. jërëjëf sama waa ji yow Ndiaye. Mm-hmm. suñu xalaasu dem bi ñaari xale yu jigéen yooyu ñu nga xamante ni waaj yóbbuwoon na leen fële ca Côte d'Ivoire. waaw te ñu nekkoon ci ay jafe-jafe yu xaw a yéeme. parce que dañ leen a nax ne bu ngeen demee am na liggéey bu leen fay xaar boo xam ne. ma ngeen mën a am ba ci trois cent mille francs le mois. ma ngoog benn mag ak rakk. ay jigéen. waaw jugee fii. Mm-hmm. jël yoonu soo fi dem ba Côte d'Ivoire. Mm-hmm. mais lañ doon yaakaar ak lañ fa fekk du benn. du xaajul bay nekk benn. Mm-hmm. xam nga wax nañ dem ba ne woo nañu ambassadeur bi mu leen moom loolu yoonam nekku ci. dem ci gëstu yu ñu def euh, xam nga ambassade joxuñu leen ay fonds pour loolu ñoom ci weer yi ñu génn. di ñuy jotee paasal ci ay nit ñu ñëwoon foofu ci condition yooyu noonu. toll nañ ci plus de cent personnes. ñu def loolu. Ah, ah, ambassade bi waaw ñoo xam ne dañuy ñëw Côte d'Ivoire ci même condition yi. bëgg a ñibbisi. waaw ñoom ñu. gérer leen seen retour ba ñu ñibbisi. Mhm. ëpp nañu cent personnes. Hmm? te nee nañ fi mu ne nii seen budget attewatul loolu parce que joxuñu leen budget pour loolu en fait. que ñoom yëg nañ phénomène bi. bu baax ñeneen ñoo xam ne yëg nañ ko tam di ci def liggéey bu am solo mooy ñi xam te ñoom ñoo yore. kër sëñ Tuubaa bi nekk foofu. Hmm, Côte d'Ivoire. waaw hmm. parce que dem bi xalaas bi jàllee pour xale yi am fu ñu fanaan dallu fa ba ba ñuy am lu indi ñu bëri dañ ma woo ne ma nañ laaj kër sëñ Tuubaa. Hmm. ba am ku ma ci woo jox ma numéro ku ñuy wax woo ko moom ak kenn ku tudd Ismaïla ñoom ñoo gérer kër gi wax dëgg ñoom tamit dimbal nañ ci lu ëpp téeméeri nit ñoom ci seen i poos yu ñoo xam dañ leen di récupérer téye leen ci kër gi foofu ñu fay dund ba mu ñu mën a am lu leen indiwaat. démb nag boole naa leen ak xale yu jigéen dafa xawoon guddi sax bi ñuy waxtaan téléphone. Mhm. waroon nañu tey normalement war nañu leen jëlee fa ñu ne ca gaar ba. Mhm. yóbbu leen foofu en attendant mhm. maanaam pour ñu dimbali leen. ñu mën a am paas bu leen delloo si ñoom ñaar. d'accord. parce que xëy na ay jigéen lañu boobu mooy benn. ñaar vulnérable nañ foofu ñu nekk. te fa ñu nekk tamit aussi euh, ci li ma jot ci li ma a wax. sécurité bi tamit dina ko yàlla nëbb. Ah waaw loolu kay moom la yàlla xam doy na. la ko waaw te ay ay doomi Côte d'Ivoire sax dañuy tumuranke biir Côte d'Ivoire. waaw rawatina nag yow nga dem fi xamoo fa kenn. di jigéen teg ci. waaw nuñ mën a gaaw a ñibbisee rek moo gën. waaw ñeneen ca kër ga bëri nañu nag fas nañ fa dell. ca mm-hmm. ca kër ga foofu. Mm-hmm. mais daal bu ku leen mën a dimbal daal ba dimbal leen ci paas. ñu ñibbisi ñu ñibbisi. loolu leen boo ñu ci 77 150 17 17 ñu xool nu ñuy jokkowee. Mm-hmm. ba ñu mën leen a euh, convoyer ñu léegi nag ki leen yóbbu. ki nga xam ne moom moo wax xale jigéen ba yóbbu leen. moom it ndekk noonu la ko xaritam def ba ko. xamoo nanu nan Cissé. Euh, Tafa Cissé Tafa Cissé waaw. noonu la ko xaritam def ba yóbbu ko. Mhm. moom it ay mbokkam fi mu ne nii. dañuy mhm. dugal tànk dugal loxo pour moom tamit ñu fexe mu ñibbisi. Mhm. mu génn ci la mu ne. ndax mi ngi jéem a woo foofu seen waa koñ ak seen famille ba ci ay rakam sax dinañ jaaro seen ay bien pour yónnee ko xaalis bi. day wax nii. maa la ko wax. la ilaha mbokk yi dañoo dañoo réagir. réagir nañ mais nag Ndiaye balaa ñuy egg ci loolu yëpp nag. Ndiaye immigration clandestine bi. waaw ñu taxawaat ci de. kenn mel nañ kam nañ kii fi ba pare bul bul jaxase yëf yi. nañ la jëndi Côte d'Ivoire ba pare soog a ñëw ci. mbëgg ci benn xibaar léegi léegi ne boo xam te ne après nañ ko topp ci wàllu immigration yi. nañ dem Côte d'Ivoire mais da ngay déglu. Mhm. sëru Tafa Cissé. d'accord déglu. Fapal noonu la demee moom tamit noonu lañ ko def benn copain yam moo ko moo ko influencé yóbbu ko laaj ko xaalis xaw ma ñaata parce que man bi muy dem xaw ma nu mu lijjantee ba dem ñun toog nañ benn jour ci jour bi mu waree dem ci guddi lañ añ ba pare ay 15 heures ci la toog ne man de damaa déposé woon benn demande waa Côte d'Ivoire léegi nag dañ maa woo ne ma bokk naa si ñuñ sélectionné dama war a dem tey ci guddi gi léegi ci la ko sama yaay ne ko waxee ne ko waaw ce que wóor na mu ne wóor na ñaanal ko mu dem léegi nag bi mu demee mu toog def deux à commencé di ñu di woo di ñu envoyé message di ñu laaj xaalis ne dañ ne ko dafa war a dugal caution cinq cent mille parce que ñoom ñi doon def examen bi yëpp dix personnes lañ ci tànn te dix personnes moom ci la bokk daa war a dem yeggali ji suivi def pratique Maroc dafa war a def dépôt cinq cent mille seen compte pour caution fay ay chambre ak genre yooyu noonu man ci laa ne ko kenn du woo nit liggéey ba pare di la fayee ko xaalis newul loo xamante ni du jubla ci nopp ay arnaqueur leen man dès le début laa ne sûr nangam ak sangam lu nekk mu wax ko ba tey mënul gëm ne xam naa boobu defal nañ ko li xale bi jigéen bi di wax rek laa ma ko nekkee di ko wax naan ko yooyu ñii kenn du la liggéeyloo di la laaj xaalis si la ma commencé di ma envoyé message naan ma ay da ngeen a bon nit bu nekkee ci àll am soxla ay mbokk ma ko mën a dimbale nangam sa man moom mosuma gëm ne lii liggéey bu normal la moo tax mosuma ci dugal sama un franc léegi nag xale jigéen yooyu ni ni mu def ba rëcc man tey ci suba message naa ko ne la ne ko ci li nga nekk génn ci parce que ñun depuis démb ñu ngi commencé di ñu envoyé lay publier ci réseau Facebook fu nekk la fay publier man nag lenn laa bëgg xale bi jigéen boobu nu mu def ma mënatuma koo jot xaw ma dañoo xaw ma mais maa ngi koy message depuis ce matin mënatuma koo jot téléphone su ma ko woowee du ma su ma ko message du tontu bu fekkee dina déglu xalaas lu xale yi jigéen yooyu def ba rëcc mu fexe def ko ba rëcc ba génn foofu parce que dégg naa même passe soo leen ko envoyé sax ñoom ñooy jël xaalis bi duñ ko nangoo jox passe mu ñibbi safaa ni mu leen naxee noonu ba yóbbu ko moom tam benn xaritam noonu la ko naxee ba yóbbu ko wax na ko ci biir kàddoom ay yoo xamante ni kenn xamul ñun famille fi mu toll nii jaaxle nañ xamuñ nu ñuy def ndax bëgg nañ mu ñibbisi te xamuñ nu ñuy def ba mu ñibbisi léegi nag ku ñu ci mën a jàppale nga dimbali ñu mettre ñu en rapport ak ku nekk foofu ñun ñu xool nuñ ko envoyé kooku paas mu lijjantul ñu ba mu ñibbisi wala ku mën a xam coordonné foo xamante ni exact mu ngi foofu noonu nga xamante ni buñ fa demee dinañ leen fa mën a jël ñu dimbali ñu suñu wax bër démb démb ci suba ci la ma envoyé vocal naan ma naa jaay samay terrain pour yónnee ko ko mu dem démb rek mu ngi koy wax naa ma jaayal sa terrain bi nga am nga yónnee ma ko pour ma mën a yeggali kon xam nga ne arnaque bi ci biir famille am sax ñu ngi koy influencer à ce que ñu arnaque famille benn xaritam bi nga xam ne ñoo bokk benn koñ moo ko yóbbu am na ñoo xamante ni ñu ngi leen doon influence sax ba ñuy waaj a dem c'est que ñooñu nag dañoo waxtaan ak seen parent yi ci ñu comprendre ci leen leen génnee ci yoon bi mais Tapha nag moom amul chance wax ak kenn moom daa jékki-jékki rek demal boppam looloo ko yóbbee lii yépp ñun daal bëgg nañ ko ñu dimbale sëñ bi te yàlla rek tax. dégg nga Ndiaye. bu baax a baax kay. te lii nag dafa am benn genre malhonnêteté bu ci nekk. Mhm. c'est-à-dire man suñ ma woowee ci mbir ma dem fekk lañ ma woo ak lañ ma wax du benn. Mhm. war naa am ngoro bañ cee dugal keneen. mais est-ce jekkowuñ ko. waaw mais non même bu ñu la jekkoo parce que tamit man mënumaa dem dem gisuma la may wax ma tourné xool ne Mouhamed wóolu na ma am na ci man confiance ma woo mu ñëw fekk ma ci li ma nekk te ma xam li ma nekk baaxul. gisoo histoire bi ñu fi indi woon ñi ñuy wax ne dañuy jëlee xaalisu Xaddafi waaw dañ ciy jëkk a jàpp kenn jekk ko ba lu luñ ko wax da koy def. waaw ci côté yépp nag. Mhm. kooko dem wuti keneen. Mhm. wax ji kay mooy il faut que ñuy bàyyi nëbbatu. Mhm. surtout est-ce que seetlu nga paas nit dina dugg ci benn affaire mu metti ci moom torop. peut-être bu ko waxoon avant mu ciy dugg. du ñàkk ñu ko ci génnee. ñu ko xelal mais xam nga ñun nag ñun dañuy baaxoo ne ay projet sax boo ko waxee du sotti làmmiñ baaxul lu nepp la ñuy wax léegi nag xam nga bu fekkente ne mbir làmmiñ moo la ci mën a génne après yow nga koy def di ko nëbbu làmmiñ mhm. ah boo ci sànkoo tamit ci làmmiñ ngay mujj rek mooy dem ci rajo yeeg wasay mbokk di wax ak lu ni mel. ma jox la exemple ma limal la fii Mohamed. Mhm. toog nañ fi def fi xalaas ci yu mel nii. Mhm. ku demoon seraale woon mbokkam yóbbu ko fa. mu ñàkk fa bakkanam mhm. jàll na xalaas fii renseignements généraux propose nañ ko lii mu démissionné dem Côte d'Ivoire gisul la mu doon am mu ñëwaat jàll ci xalaas bii tout récemment benn booy jóge na fi euh, basi euh, am egg baxam ba pare dem Guinée ñëwaat fii jaar ci xalaas bi mhm. exemple bu nekk jaar na fi nit dem na fa génn àdduna nit da bàyyi na liggéeyam dem fa amul woon wut nit ñi nañu déglu te toog <laughs> jéem a mais xam nga nag yoon bu gën a gaaw pour euh, ñu toog. mooy nga leen di wax la fa am. comme xale jigéen yi ñu teg démb. comme Moustapha Cissé mii nga xamante ne ji ay mbokkam gisee nga xam ne ay mbokkam génn nañu wax na. loolu moo leen ci mën a génne. moo tax ñun bu ñu bu ñu tout le temps rek nañuy fexee di wax nit ñi la fa am. muy Côte d'Ivoire muy Mali muy. Ghana Ghana muy France fu mu ci mënti doon rek ñun nañu continuer di leeral am na loo doon junj sànq ci affaire immigration yi. waaw. Mhm. xam nga fan yii yaa ngi dégg ñu naan am na benn am na ay bateau yu yab trois cent sénégalais. gaal euh, gaal waaw. Mhm. loo cooy yu yab trois cent sénégalais yoo xam ay candidat lañ ci immigration clandestine bi. Mhm. coow li commencé na bari nag parce que am na ay ONG yu ko wax euh, affaire étrangère gis naa ni démentir nañ ko. mais lu ci mënti am Mohamed man balaa muy dugg nii ci studio bi nii woo nañ ma téléphone xibaar ma ne ma. Hmm. am na benn gaal gu suuf fële ca boor yi ndar. Hmm. ba am na sax ñu ci ñàkk seen bakkan. Hmm. joxe gu ñu benn lim nag. xam naa bu ñu paree dinañ ko topp. mais nga ne ma Ndiaye genre situation yi nii nañuy moytu di gaaw a démentir te ñuy préciser aussi. benn bi mooy bu ñu nee gaal déparé na Kafountine wala déparé na Sénégal ça veut pas dire ay Sénégalais lañu. loolu il ñu bàyyi ci xel. gaal mën na yebee Sénégal fii yëpp ñeneen ñoo xam ne du ñu ay sénégalais. Mhm. ñu départ wutali Espagne. bi ci topp mooy ONG yi nii di wax mën nañu am information yoo xam ñun duñ ko am. Mhm. parce que bu gaal di départ Sénégal fii ñun duñ ko yëg dañuy làqatu buñ ko yëgee mooy gendarmerie jàpp na leen wala dem nañ mun ñoo egg ñëwaat nañu wax nañ ñu demoon nañu. mais tant que ñoom ñu ngi départ di làqatu maire ba mënu ko mhm. ONG di jot mooy ñoom ñoo leen di woo. parce que fa leen di mën a woowee. suñ leen woowee dañ leen di laaj ñaata nit ñoo na ci gaal gi ñaata góor ñaata jigéen ñaata xale ak fan ngeen déparé. Mm-hmm. moo tax ñooñu di am yenn information par rapport ak ñun à notre niveau ñun. Mm-hmm. mais lu ci mënti am ñii di jël gaal yi di déparé Kafountine wala Gambie nañu xam ni diggante Kafountine ak Canaries toll na ci presque deux mille kilomètres mille sept cent kilomètres exactement. Mm-hmm. pour nga déparé foofu egg new mënul nekk de mais c'est très rare. très rare nga déparé foofu egg. léegi nag bala ñuy lijjanti ci ONG yi information bu ñu joxee démenti bu autorité sénégalaise yi def yooyu yëpp dafa am lu ko jiitu. mooy nañu ba gaal yi. teg dara aussi. nañu bàyyi gaal yi. Hmm. loolu mooy wax ci mooy dëgg tamit. xam nga loo xamante ne ji yow booy préparer da ngay nëbbatu. Hmm. nga dem sa bakkan nekk ci xott. Hmm. nga yegg sa ñibbisi weesuwul. wax dëgg fa yàlla mi yàq xaalis ak ñu bëgg a xaru weesu ko. gis nga coono bi ngay daj bu mbëkk gàll. dajale xaalis bi lay yóbbu. jël risque tegu ci géej gi. jël risque dem doo xam loo fay fekk. boo ba du boolee coono boobu yépp toog ci réew mi muñ ko da koy gën a yomb. dëgg naa dëgg te man damay wax ne tout est psychologique xëy na dogalu yàlla ci la bokk nag. mais mm. lépp ci bopp la. Mm. boo defee sa bopp bii ne réew mii mënoo fi am teraanga. Mm. bu la ñëpp doon jàppale doo fi tedd. yow boo defee sa bopp ne Sénégal bii yow. mënoo fee tekkee. bu ñëpp àndoon ci yow di la takkal sax du la tax a tekki. mais boo defee sa bopp ci ne réew mi mën nga fee tekkee. wala nga def sa bopp ci ne bitim réew mën nga faa dem mais ci yoon bu jibaa euh, normal nga koy jaar. da nga koy am. mais lépp ci bopp la nag. gis nga Mohamed. man mi am chance su dem Maroc récemment dem ba booree dax la ak layun yooyu noonu lii ñuy wax ni sax naan nombre tàngam jël nañu gaal nombre nangam dee nañu bu ñu bu ñu wax bu ñu déclaré cent jàppal ni mille personnes denn teguñu ko hmm. parce que moom laa lay wax ñii dem tant que jàll ñu ba dem au international mun ñu am benn information ci ñoom bu ñu suuxee ci diggante bi. mooy ne kenn amul benn xibaar ci ñoom à part que leen tegoon ñu dem wala nit ni donc ñu bëri dee nañu ci géej gi te kenn xamu ko bu ñu demoon ba dem ci armeere gis bàmmeel lañu def x nga xam ne xamuñu seeni borom wala dem ci kaso dañ bàyyi ñu bàyyi gaal yi ñun te dem ci leneen. am na benn booy bu dëkk mbuur benn boy mareyeur. Mhm. papa ji tam mareyeur la. boy bi daa bàyyi papa ji dem Màkka mu dem sàcc 14 millions papa ji. Hmm? tukki wu ci jëlu ci gaal. liggéeyu ci investir ci xbet la ko joué ba mu jeex. 14 millions. ñu baal ma da koo carte xaalis jeex. papa ji jógee màkk ñëw fekk 14 millions yi ne mes booy ba jóge mbuur daw làqar juy Thiès plainte yi daw booy bi ñëw dugg Kër Massar brigade de Thiès Kër Massar ni ko ciir ah jàpp nañ ko waaw mais xaalis ba jeex na takk kàttee na ko xaalis bu mu jeex te gañewu ci xaalis tàkk jox na ko naar ba mu jeex <laughs> ayca ñu ñu ñu ñu déglu. non loolu doon loolu kii la express la. Mhm. léegi nag moom dañuy dem Thiès. Mhm. Thiès xam nga démb yaa ngi dégg euh, waa jiñ faray. waaw yaa ngi koy côté université euh, Iba ci boor polytechnique bi noonu. Mhm. Cheikh Anta da ci ñëw démb moment bi ma koy monté ba war cee pare far yàlla ma jokkoo ak frère booy bi. mais dañuy déglu Cheikh Anta pare ak mel ne frère booy bi. mbir mu yéeme lool metti waa Thiès di as ndaw loo xamante ne ay atam toll na ci ñaar fukki at ak juróom wala lu ko yées lañu fekk ju tëral ko ci boori tali bi deret ji nag sang ko mu faatu liñ ci mën a jàpp mooy dafa mel ni dañu ko rendi loo ne nag nekk njàqare bu rëy rëy ci quartier bi nga xamante ne moom mooy cees noonu di xàll wi nga xamante ne moom moo jëm ci université Iba Der Thiam jubali fi nga xamante ne moom mooy école polytechnique bu Thiès foofee nag ñu gis ne xàll woowee dafa wéet nag bari ay ñax ay xale nag yu ñoom ñoo gis nag mu tëdd ci booru tali bi dara ji sangu ko si la ñu woowaa quartier bi ñu oo police centrale bu Thiès ñu mën ci ubbi blanquette jamono yi nag jël nañu néew bi yóbbu ko ci hôpital Amadou saxir njegeen bu cees police scientifique sax ñëw nañu ci bërëb do teg sodi pik yooyu nag doon euh, xool nag mbir mi ngir ubbi ci blanquette xool nag ku def ñaawteef googe xëy na nag ci ay fan yu néew daa daañu xam ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñaawteef bi wala ki nga xamante ne sax moom moo ci loru fu mu dëkk waaye nag waa quartier a génnoon mettitu lool jëf ji nga xamante ni ñaaw na lool ci gisin rawatina sax ci déggi dégg nga ma bu baax loolu démb la woon mhm. léegi nag moment boo xamuñu woon identité wu mhm. ki nga xamante ni jël nañ bakkanam ak seen anam lañ ko jëlee mhm. waa ji mortal la tudd jakarta la yore te gis nga Mohamed zone bi ñu ko agressé. Mhm. ku xam Thiès dëgg xam ñaari voie teg yi jaar polytechnique pour dem jëli yoonu Tivaouane bi. Mhm. Mohamed foofu wéet na. Mhm. foofu amul lumière boo xasee ba engagé lu la fa bu la fa musiba fekkee yàlla tere pour nga génn ci problème la. Hmm? daanaka àllu kese la. booy bi Jakarta moo tax ñu jël ba kanam. Jakarta bi lañ bëggoon jël. jël nañ ko. dem na yóbbu nañ Jakarta bi mais anam yi ñu jëlee ba kanam Mohamed. élément bi damay ragal ni bu jaaree duñ tegaat dara. te am na loo war a wax na ba boo nga ko léegi. Ah bon parce que bi may enregistré frère man mii maa ngi ko enregistré mais de façon très difficile. ci histoire bi ni mu demee circonstance. ni mu ak ak moom sax maanaam ni mu def ba wax. ni mu def ba wax kii gam naan boo ko dégloo doo ci tegaat dara. ñu déglu déglu. muy wàcc Mortalla mii moo ko wàccee Mortalla tudd sant seen jagataa boobu la yoroon aduna da ngay gis ndaw bëgg dara bañ a def na ko sulul noonu bañ a sàcc wala muy agressé wala yamul mu jël motom di ci góorgóorlu mën am jom di xëy fajar di wàcc heure et motom ci góorgóorlu lu ma am jàppale boppam jàppale ay waay juróom bañ a def na ko sulul noonu ay nit attana ñëw di ko agressé agressé nekk di ko jam <laughs> yëpp si jaw sa gën a teel si reddi arrêté xam leer na ndaw jàmbur la day naturel rek dafa metti wala nga jël xale bu ndaw góorgóorlu gën a daw koy reen di ko jawati ba di koy saxaru tabaski loolu xanaa da ngay nekk ndaw di ut ni nga amee ni nga teral sa wayjur teral sa bopp bañ a dugg si narko si dul noonu saa kii ñëw kar la gaañ la rey la jël sa alal dem fu nit di muccee parce que da facilement muy romb <laughs> di rey ni comme ay ginaar pour lan ak bakkan nu mu toll si quatre cent mille jagartaa quatre cent mille doo ko nit ñu may ko woo <laughs> gën ki nga doon ak réer ko am la loo xam ne dafa ñaaw am loo xam dafa metti te yow mën a torop te day leen ko def lii du benn nit nit ko dawal toom ba ñëw ngeen agresse jamate ko ba pare tër rendi rendi loolu xam nga léeg-léeg benn nit def ko loolu day nekk ñaar ba ñett ñu ko def <laughs> ñu xam booy bi lañ ñu xam moor lañ xam nañ sama rakk bu baax fa ko def lii dañ ma wax ne ñoo soxla xaalis parce que quatre cent mille ba ñu jël si moom ba tax ñu koy rey xaalis quatre cent mille lu mu mën nga jël si bakku lu jaaw pour xale mu ndaw ba toll si buntu àdduna di ut du xool du mu gérer laay fa bañ a taal loxo kenn <laughs> bañ a ñaan bañ a fëgg benn buntu mun nañ ko gaay sax ñu faj ko garaawul parce que dimbali si ngir yàlla wa rasul police def seen liggéey bañ teg yi loxo fay ranxe ay cinq heures mais heure bi exact wax dëgg xaw moo ko parce que dañ ko rey pare sànni ko parce que dañ koo làkk yax nañoo yëg ne maanaam moo taala sax maanaam ray nañ ko parce que dañoo toog ba heure añ jël siwul añ yooyu noonu gis ñu ko commencé di laajte far yàlla ba gis ko fekk police jël na ko xalaas peine de mort hmm. peine de mort moo war a dellusiwaat ci réew mi Mohamed li mooy dëkk fàttali ñu numéro xalaas bi 77 150 17 17 17 17 waaw ba suba jàmm أحدنا